ma lu ma doon rek moom la moom Ndiaye wax ma lu ma am moom la naam koy ñaanal yàlla képp lu ko may séntu ci lu bon la yàlla ñëw si yow. ñam ma aram guddeem mi ko def ci biir wax mi ko def ci àndama moom i sàll moom Ndiaye wax ma merci maa ngi gërëm ñëpp li ñu santoon nag yéen jigéen ñi euh, communication traditionnelle maa ngi leen gërëm maa ngi leen yéen yéen jigéen ñi daje fi parrainage bii ngeen dajaloo te ko sama loxo bii ngir yàlla ak yonente ma parrainage bii takku na takku boo xam ne nii ngeen na ko joxe na ngeen ko votee ca wirnu ba nii ngeen na ko joxe na ngeen ko votee siggil moon siggil moon Ndiaye Rahma andi ngeen fii 7000 parrain 7000 parrain ku koy parrainé ak leneen li ko topp toppaat ci xam ngeen yéen yéenay jàmbaar. loolu président yi nga xam ne. leen nga aju li saaxu di liggéey ak ñoom jaaraam na leen maa ngi leen di nuyu bu baax waaye di leen félicité di leen ndokkeel ci seen bés tey bii yéen comité yi nga xam ne yéen ànd ak présidente Ndeye Sakho am ngeen jaaraama ci biir wax def ngeen li ngeen war a def taxaw ngeen taxawaay bi ngeen war a taxaw lépp loo xam ne sant naa ko Ndeye Sakho fexe ngeen bam am ca ndam kon jaawal rahma dàkkantal la Mouhamed Ndiaye rahma membre la kenn la ci biir APR kenn la ci keppaaru président Macky Sall loolu bëgg naa ngeen gën koo ngeen gën koo tas bu gën a leer. ñu teg suñu loxo 7000 points. loolu dafa am lu ñuy prouvé rek ci gars yi nekk ci biir Kaolack foofu laa yem. Ndeye Sakho rek joxe na 7000 points. loolu dafa am lu muy firi ci biir Kaolack bàyyi naa leen ne gars yi. ajaratu Fane nañ génne 3500 moom dong moom ak waa Sénégal. muy 10500 muy 10500. fukki junne. 10500 waaw say toog di xel yi jël leen message boobu ngeen firi ko ànnata naa ma yegg ci ñeneen ñi. ay jambar fàkk teud ndax man 55 groupement la yoré mais 55 groupement yoy mon jaay génne nañ 3000 parrainage 55 yi génne nañ 3000 parrainage ndax daf ci am ñoo xamné bama leen joxee sen 5 fiches dañu dem remplir ko delu si wat ne ma tànn caa joxat ñu dem remplir kon lolu yaakaar naa ne wax dëgg yàlla mbëggeel munu ko wessu mu am xalé yi ma indi barki dem muy les jeunes de taxa nekkon fenen nekkon ci benen parti gis la ak sa taxaway ak sa bravoure te ñu xamne sen seen daanaka seen morom nga ñu bayyi fa fañ ñu and ci ak yow. les jeunes de taxa indi nañ 100 fiches pare nañ cent personnes. Ah, waa marché Kibel nga xam ne may mun a moo ma boole woon ak ñoom ma présenté la leen waa marché Kibel ñu ngi ci biir mbooloo mi pare nañu cent personnes boo ko boolee trois mille yooyu muy trois te ñetti fiches fekkaat nañ ma fii ma toog mu na sama rakk ñëw nag ma jébbal ko ko ah di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal ndam. présidente Thiam Omar Tall maa ngi lay nuyu. yaa ñi nga ànd ak yëpp mboolem comité yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak yow tey ci biir Rahma. waaye itam di la féliciter ci sa bisu tey bi di la ndokkeel bu baax ci xew-xew bi ak ci liggéey bi nga nekkoon yaa ñi nga ànd ak. ñetti présidente ñetti présidente yi ma demagum ñetti présidente yi ma demagum rek ñoo génneegum treize mille sept cent ñett ñi ma demagum waaw présidente yi ci des nag waaw présidente léegi tey ñu commencé naan wooy waaye nag dafa am lu am solo lu ci des loolu mooy loolu mooy waa Rahma waa ana waa Benno ana présidente yi nga xam ne ñoo nekk grand majorité ñooñu ñett kat génnagul mane mane ma ah. ne yi nañ moytu nañu nañ nañ jubal sàppe yi nañ jubal sàppe nañ jubal sàppe yi nañ jubal sàppe yi moo gën bu jubalee sàppe yi wax naa démb ma ne buñ jubalee sàppe amul ci kaw lak nañ jubal sàppe yi waaye nag liggéey bi bala maa jàll dama bëgg li ñuy ne na ngeen am fulla taxaw ñu fexe mu nekk ay électeur ak ay électrice loolooy wax ji wax ji fi mu nekk mooy ñi nga xam ne ñi ngi pare na lépp ci biir Rahma di ko pare na ci biir coalition bi di ko pare na ci grande majorité bu jigéen ñi nañu fexe ñoom ñëpp ñu voté bu élection jotee foofu la mbir liggéey bi nekk liggéey bi fi mu nekk tey mooy nañ fexe ba ni pare nañu voté